asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax a baax rawatina ña féete Argentine bokk ci fédération bu Touba Argentine ñu ngi leen nuyu baax a baax di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi suñu xalifa général di sëñ Sidi Mokhtar di ñaan yàlla mu yàgg fi lool teber wér ba naal yi naal yëpp mu àggale ko te ànd ko ñun. ginnaaw loolu ñu ngi leen di yëgal suñu ziare bu mag bii nga xamante ne moom la ñuy waaj a def muy fédération Argentine bépp. ñu war a ziar ji xalifa bi la samedi tombeek euh, le 9 septembre ñu ciy woo mbooleem koo xamante ne yaa ngi nekk Argentine te nekk Sénégal ñu ngi la ciy woo muy loo xamante ne nii yaakaar naa lu njëkk la ndax daanañ ziar ji waaye ziar bi mel ni mus fee am mbooleem daayira yi nekk Argentine yëpp ñu top ci ginnaaw Miftaahu Nasri ñu def benn dank fas ko yéenee ziare loolu yaakaar naa lu historique la kon nag ñu ngi ciy woo suñ mbokki taalibe yëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk Argentine képp koo xamante ne sa mbokk ngi fii te mu leer na du yëg communiqué bi ñu ngi lay ñaan nga jokkoog moom man ko koo wax mu jokkook sëriñ Dame Cissé mi suñ jëwrin mu mën a teew ci ndaje mi ndax lu am solo la ñi ngi ñaan daal teewaayu ñëpp xanaa kaddu yi dafa fekk lu mënta ñàkk waaye suñ jëwrin war ta taxaw ñu ci yëkkati kàddu kon daal ñun foofu daal la ñuy jëmal suñu kaddu ko lancé appel daal maanaam mbokki taalibe yëpp nu teewaay bi gën a bëri daal mooñ ci gënal incha allah ñu daje ci jumaa ji mën a dem ziyaar ji sëñ Ibrahima Khalil taj buñ jógee foofu nag door dem ziyaar ji sang bu tedd bi ñu ngi woo ñëpp daal bàyyiwuñu kenn képp ku ci mën a teew daal sab teewaay danañ ko rafet lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibé yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziara ba saahibul fadila wa darajat rafia Serigne Touba Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di ñaan yàlla suñu borom mu yàgg fi loolu te wér waaye di ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall ibnu Cheikh Mouhamadou Moussa Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall mu yàgg fi loolu te wér ak njobootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gépp naka noonu ak njobootuk Serigne Touba gi ak seexi Serigne Touba yi ginnaaw loolu ñu ngi nuyu njiitu daayira Miftaahu bi muy Serigne Yaqouba mboolem jëwriñ yi nga xamante ne rek ñoo nekk ci fédération bi waaye di sant yàlla ni ñu ko waxee ci eh, njëlbeen gi rek eh, sant gi mooy eh, fii ñu taxaw ci barab bu sell bii Euh, jàkkaarloog jumaa yi Serigne tubaa ju tedd ji fii mooy euh, maski maskanu Cheikhul Khadim di kër gi nga xamante ne mooy këruk Serigne tubaa gi nekk fii ci jumaa ji waaye jàkkaarloog jumaam ju tedd ji nga xamante ne mooy jumaa ji ko yàlla faye nga xam ne nee na ku ci feeñ doo doo nëbbu waaye ku ci nëbbu doo feeñ kon ñoo ngi am taw feex bu baax a baax ci kër Serigne tubaa gi ñu taw nekk di waajal euh, waajal ziar boo xam ne ku ku ku la boo xamante ne bu bu kawe la ndax ni ñu ko waxee rek ziaru ren bi daf dañ ciy ànd ak mbooleem daayira Serigne Touba yi nekk Argentine moo xam fu daayira daayira wa rek ci biir Argentine gépp nag jëw kii ñu taxawal sëñ Modou Sy mooy jëwriñ Formosa ak yeneen jëwriñ ya fa nekk yëpp tubaarkàlla maanaam fédération bu mag a mag mag la ëmb mboolem daayira yi nekk Argentine ci njiitul nag sëñ Yaxuba Géey ñoom ñëpp nag ñoo mànkoo boole seen addiyee jin doon liggéey la Serigne Touba nag war koo yembal incha allahu samedi bii di ñëw dajeeg la 9 septembre euh, ñu war a daje fii nag ci kër Serigne Touba gi képp koo xam ne yaa ngi nuy gis wala nga nuy seera wala nga nuy déglu na nga xam ne ziar bi samedi ci suba fii lay ni dajee ci euh, kër gu mag gi bu ko defee ñu waaj def combat bu mag dem nag siyaare ji Serigne Ibrahima Mbacke Al Khalil ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal fii ci këram gi kër ñang ci kër yoonu ci yoonu foofu la ñuy yendu euh, sëñ bi wax ne ñu ñëw yendu si fa saafonteeg moom mu dalal nu buñ jullee takkusaan nag ànd moom ci giiw ak teggin war a dem nag seeti saahibul fadila wa darajatu rafi'a Serigne Touba Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di ñaan yàlla suñu borom mu yàgg fi lool te wér te euh, yàgg liggéey yàgg liggéeyal Serigne Touba yàgg ko fee fekk ay ati at ci barkeb Serigne Touba kon daal noonu ñu ko waxee yi ak Serigne Bamba bi nga xam ne ñoom mooy jëwriñ ji topp ci ak mboolem daayira bu nekk Argentine rek ñoom ñooy waajal seen ziar bu mag bi nga xam ne moom la ñuy def noonu ñu ko waxee waaye di santaat yàlla rek ci euh, booloo gi mooy waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraxu li alxuraan wax rek moom moom moom moom mooy moom moo mu na suñ borom ca ba mu koy ñaan yàgg na yaa rabbi ijaalil muridina maan fi xisnikal xasin wa samli ajmaa mi ngi ñaan suñ borom mu defal ko mboolem taalibe Serigne Serigne Touba yi fu nu mën a nekk rek nekk fa benn kon xam ngeen ne réew moomu ñu nekk muy réew Argentine sori na buñ ko tuddee ci Afrique dana jaaxal ñu bari ndax réew mu la mu sori sori sori ci Latin Amérique waaye mu néew euh, tumuranke jaamu la waaye nag Serigne Touba yàlla da koo fay foo fu xeetu Seydina Muhammad ne rek aw xeetam nekk fa la waxoon lakit unaadi kullal bilaadi lisal ibaadi bila jëlaa yi yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan maa ngi woo bépp réew rek moom Serigne Touba ca ñaanam gu tedd googu lakkin unaadi li fi nekk maa ngi lakkin li fi nekk unaadi maa ngi woo kullal bilaadi lisal imaadi bilaa jëlaay ñu ñëw ci wéerukaay bi nga xam ne ku ci wéeru doo daanu muy Moustapha alayhi salaatu wasalaam te waxoon ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xara wa inni ahmadou kon kooku mooy Serigne Touba dafa ñëwoon rek tegam tànkam ci sunnas Moustapha alayhi salaatu wasalaam di ko yeesal waaye bàyyi woon fi njabootam gu sell gi muy sëtam yi ma waxoon ne wahab lana zuriyatan tudimu al amala saaliha ya xadimu loolu ñaanuk Serigne Touba la ko yàlla fayee ci ay sëtam yi kon ñoo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba nañ di ceeg ngërëmul Serigne Touba di daje ceeg la siina daamu fi na yow yàlla maa ngi lay ñaan nga jóg faj aajo yi képp koo xam ne jóg na liggéeyal ma te la muy sàkku yow yàlla suñu borom nga defal ko kon loolu tawfeex la ju rëy rëy yàlla nañ ci dajeeg ngërëmul Serigne Touba ci bayta woowu ak euh, képp koo xamante ne rek lu baax nga jógee euh, lu baax moo la tax a jóg ci ziar ak yàlla yàlla defalu nag yoolub ziar xaar ñu yàgg a siyaare yàgg yàgg ko fee fekk Mbàkke Bàlla tam ànd ak wér bu bëree bëree bëree bëree bëri ñoo ngi sant nag euh, waa télévision TV Argentine bi ñu àndal euh, ci euh, ànd ak moom ñu sëñ Cheikh Ndiaye ak sëñ Ndiaye ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen ziyaara baax di leen gërëm ci seen teewaay ak di ko rafetlu baax a baax kon xam naa ñu yamale foofu gàttal gi rek xam naa lii moom ab yëgle woon rek bu jëm ci bis bi waaye incha allahu bu aju bu samdee dana gën a yaatu ziar bi ba ca kër sëñ Xalil incha allah danañ fa ànd ak ñoom waaye ba ci kanam sëñ Sidi Muxtaar danañ fa gën a ànd ak yéen kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.